wenn xeet ci ay jaamam wax ne ñi nga xam ne dañoo taqoo ragal seen boroom ak ñi nga xam ne dañoo gëm alxuraan ak ñi nga xam ne duñ bokkaale seen boroom ak dara ak ñi nga xam ne la leen yàlla indi lépp dañoo sàmmoonteeg moom ànd ak lañ lañu am lépp seeni xool waxtu nekk dafay yëg yàlla di tiit ngir xam ne rek ci moom la ñu dellu ëllëg nee na ñooñee ñooy ñi njëkkante yiw yi te ñoo ci jitu kon ña ña sàmm kon ñoo ñoo làmboo yooyu melukaan sàmm it làmboo it ay ngëneel yu bari waaye am it wàccuwaay wa màgg wu kawe toll ci jamono joo xam ne ci lañ ko gën a soxla waaye mooy jamono ji mu gën néew nag ba mel ni luy bëgg a tumuraanke mel ni luy bëgg a far fàddu suñ jamono ji jamono joo xam ne ëll doomu aadama daanaka itam yépp xaymam teef xaymam àdduna la ak di ko wut di ca kër kër yi ba mel ni li ñu tudde xaatu bi lay li nga xam ne taxanum guddi nga xam ne matt ko dajal for xam ne ràññeetuñ diggante lu am njariñ ak lu am lor ràññeetuñ diggante lu dagan ak lu xaram ràññeetuñ lu baax lu bon waaye dañu dajale rek eh, lam ak sàmm googu nga xam ne moom la lislaam digle muy jikko jikko jikkoy lislaam ju mag joju sàmm nag mooy li aar boroom ba dox digganteem ak tàbbi ci lu xaraam dox digganteem ak gàttañlu walla sàggan ci joox wari gar yi sàmm it mooy li ko musal àddina ak alaaxira ci sàmm itam lañuy ñuy mën a sàmme der yi ci lañ koy mën a sàmm der yi ak deret yi ak alal yi mooy sabu si tax itam yóbbu nit ki ci mën a jëfi njekk waaye yóbbu ko ci mën a doylu doylu doy doylul bakkanam te yàlla tax moo ko yóbbu itam ci ak tàpp lu mu am bokk nit ñi ci sàmm ci la ñuy aare aw làmmiñ ci xiil ak xaal jëpp wax ju amul njariñ ci lañ koy sàmmeetañ ci jëw ak ràmbaaj ak jeqi fitna ak tasaare ko ak lépp luy jur ak lépp lu ko jur ci sàmm ci la ñuy mën a aari làmmiñ ci yooyu yépp ci sàmm ci la xemum àdduna ak wut ko di di daqoo Eh, ci sàmm itam la ñuy la ci la mën a aaro ci lextikaar muy dund ci kaw nit ñi jëleen ci xosayfatul yamaan radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne fadlul ilmi xayrun min fadlil ibada wa xayru diinikum alwara ngëneelal xam-xam eh, moo moo gën ngëneelal jaamu yàlla moo féete kaw ngëneel jaamu yàlla mun waaye ngeen seen diine nag mooy sàmm xaakim moo génn xadis boobu ba jël nañ abi hurayrata radiallahu anhu mu ne bi salallahu alayhi wa sallam wax na aba hurayrata kun wari an takun abada annaas wa kun xani an takun ashkara annaas wa axiba linnaasi maa tuxib maa tuxib nafsik takun mu'mina wa ahsin jiwaara man jaawaraka takun muslima wa aqil ad-daxk fa inna kathrata ad qalb nee na salaasan def ma wax ne yow Abu Hurayrata na nekk ko sàmm soo sàmmoo day jàppal ne yaa gën a jàmm yàlla ñëpp waaye nekkalit ko doylu soo doyloo itam yaay ki gën a sant yaay ki gën a sant ñëpp na nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp kon danga nga nekk ku gëm yàlla dëgg-dëgg na nga rafetal saw dëkkiin ak ñi nga dëkkal kon danga doon jullit dëgg-dëgg te nga néewal ay ree ndax ay ree ree yu ree bari dafay rey xol Ibnu Maaja génn indi ko ci ay sunam ak yi nitu yàlla ko ñu wax xabi xabib ibnu abi thabit rahimahullah dafa wax ne laa yujibukum kathratu salaati mri'in wala siyaamuh walakin anzura ila wara'i fa in kaana wari'an maa ma razaqahu llah min al ibada fa huwa abdullahi xaqa nit ki barik jaamu yàllaam bu mu leen yéem barik ay kooraam sarxeyam ak lu baax yam def lépp bu leen ci dara yem waaye xool leen ak sàmmam rek su ngeen xoolee gis ne ko sàmm la ànd ak la ko yàlla wësagal ci jàmm soo jàpp leen ba wane kooku mooy jàmm yàlla dëgg-dëgg ki rafetal ak jàmm kon sàmm ci la lépp nekk moo tax shaa'ir ba ne woon lay lay laysa dharifu bi kulli bi kaamilin fii dharfihi laysa dharifu bi kulli bi kaamilin fii dharfihi xataa yakuuna anil xaraami afifa fa ida tawarraa an maxaarimi rabbihi fa hunaaka yuddaa fil anaami darifa nee na mbaax ak tedd nga dëgg-dëgg munta mat lu may nit ki feggu ci lu xaraam bàyyi lu xaraam nit ki saa sàmmoo nag ba bàyyi yu xaraam yépp subaa kooku nag mooy dëgg-dëgg ki ñuy wooye nit ku tedd nit ku baax nit ku sell waaye itam nit ñu baax ñëpp nekk nekk ay royuwaay ci sàmm ña ci jiitu mooy yonent yi nekk itam màndargay ñu ragal yàlla ñu baax ñëpp ñu tàmbale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy royukaay bi gën a mag ci lépp ñëw na ci as-saxiixayn jële ci abi hurayra yàlla ko yàlla gërëm mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi samu wax ne inni la la ataqallabu ila ahli fa ajida atamrata saqitatan ala firashi fa arfauha li akliha thumma axsha an takuna sadaqa fa alqiha neen léeg-léeg del dem sama kër fekk ci sama kawlal tàndarma su ma ko jëlee ba ko bëgg jëfandikoo ragal ne lii mën am sarax la ma dal ko waccaat <coughs> xam nga néewut fekk naa ci tool ba néew lu fekk ci yoon wi néew lu fekk ci ëtt waaye lu fekk ci kaw kon loolu mooy dëgg dëggi dëgg dëggi dayub sàmm ba tey jël na ci abi Hurayra ba tey mu wax ne ah, anna alxasan ibnu ali axata tamratan min tamri sadaqati fa jaalaha fii fii fa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bil farisiyati kix kix amma taarifu an anna la nakulu sadaqata xasan moom imaam ali satu yendu dafa mas a ñëw ci sarax si sarax yi jël ci tàndara dem ba dugal ko ci gimiñam saa sam ko yàbbil yàbbil yàbbil xanaa xamul nun waa alul baytu duñ lekk sarax kon day woon kon lépp ak sàmm lay tegtale benn waay bu baax xisa boo xam ne yonent bi saasam moo ko nettali nga xam ne roykaay la bu bu bu am solo ci wàllu sàmm abi hurayra moo ko solo mu ne ab waaye dafa mës a jënd ab pàkk jënd ko ci keneen kon demee ca pàkk ba nag mu fekk fa bu waat bu mag bu fees dell ak or wurus mu des ci ki ko jaayin pàkk bi ni ko jëlal sa wurus yi ndax man pàkk laa jënd waaye jënduma wurus borom pàkk bi ne ko waaye dama laa jaay pàkk beeg lu ca nekk ñu ñu ñu bësante ca bësante ca kenn nagu ko jël kenn kon bu ko bàyyee moroomam loolu def naa wut naa suñu jamono ji mujj dem ci ko leen di àtte ka leen di àtte laaj leen ndax am ngeen njaboot kenn ni ko man de am naa doom ju góor kenn ni ko man de am naa doom ju jigéen mooy nañ dencal doomi ku jigéen ki kii doom ju jigéen nañ ko dencal doomi ku góor yi soo defee nag wurus wii ñu génne ca can gaag la ca jëm la ca des la ca des ñu sarxe ko nga xam loolu leen atte nga xam ne kenn nangu ki ca jël ki naan pàkk dong laa jënd jënduma wurus kii ne ko pàkk ak lu ca nekk laa la jaay loolu nag kon dëgg dayo sàmm kon mooy mooy mooy loolu mu am itam ay màndarga ak melokaan moom sàmm jullit bi dañoo sàkku ci moom mu sàmmonte ci tab bi lépp lu bon ci wax ci jëf walla ci jikko ak wala aw melokaan waaye mu nekk lu yaatu loo xam ne incha allah buñ ci desee gën a gën cee yaatal yàlla suñu ba boole dimbale boole defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci te def nu dëgg-dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nanga nu suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin il amin wa ala alihi wa sahaabatihi al ghurril mayamin wa ala xayri xadimihi dil xablil matin wa ala man iqtafa athaaruhum ila yawmiddin mbokk jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi nu borom subhaanahu wa taala julli Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal ashaykhul xadim noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ak weer bu tedd bi ak barab bu tedd bi sunu waxtaanu tey ku jëmale ci benn tomb boo xam ne benn la ci jikkoy tasawuf yi bokk ci jikkoy lislaam yi gën a tedd gën a màgg muy li ñu tudde alwara te ak sàmm sàmm jikko la ju tedd bokk ci jikkoy lislaam yi gën a màgg kon ci la léppi nit ki di teye muy ak lekkam ak naanam am colam ab léppam ci ak sàmm ci lay ci la loole di di di di di di ci sàmm ci la nit ki mën a seetale diineem ci la mën a seetale it ab deram waaye mu nekk màndarga ci màndarga jaami yàlla yu tedd yu baax yi waaye nekk melokaan yi ci melokaani niti ngëneel yéeg niti tedd nga yépp jëmmi baat bi nag euh, mooy rek fegu ci mboolem lu xaram mooy bàyyi lépp lu xaram sàmm mooy nga bàyyi lépp lu xaram ak génn ci ba set wicc prix moomu nag ñu bari ca xam-xam boroom xam-xam wuute ci ci niñ ko firé waaye maanaay yépp nag yenn la ñi dañu wax ne mooy nga bàyyi lépp loo sikki sàkk lépp loo sikki sàkk lu la wóorut ak bàyyi lépp loo xam lu la mën a ayibal la waaye te jàpp ca la gën a wér jàpp ca ca ca ca la la wóor ak teg sa bopp nag ay diis diisi jaamu yàlla am ñu ne mooy bàyyi bàyyi lépp luñ ne aayut ngir moytoo tab bi ci lu aay tarku ma la ba'sa bihi xadaran mimma bihi ba's bàyyi luñ la ayut rek nga def bu yàggee nga tàbbi ci lu ay am ñu ne mooy bàyyi lépp lu ñuy ragal loram bis penc loo xam ne mën na laa jural lor ëllëg nga bàyyi ko am ñu ne itam mooy bàyyi mboolem lënt yi ngir ragal a tàbbi ci yu xaram yi ñan yi ne wara mooy génn ci bànneex yi bàyyi mboolem ñawteef yi boo xoolee prix yee wute waaye maanaay yëpp nag yenn la ko mën nga rek sàmm kon mooy jox wari yi waaye bàyyi yu xaram yëpp ak sori mboolem lënt yeeg ngir ragal tàbbi ci eh, lu du noona